nga gis fi kilifa yii yëpp dana jaadu nga yëkkati ñaari kàddu sax sant leen kon noo ngi leen di sant bu baax a baax a baax di jiital sant gi nag sunu wayjuru bopp muy soxna Astu Mbàkke ñu koy ñaanal suñu borom teral ko te yàggal ko fi lool te wér ndax li yëpp moom la moo ko liggéey sunu borom fay fay fay ko ko ba ñun ñu ca fay ga kon ñoo ngi sant yàlla bu baax di ko sant di ñaan suñu borom gën ko fee yàggal bu baax a baax a baax mi ngi noonu toog may sàkku nag képp koo xam ne sama mbég sama sa mbégte la mbégum sëñ Tuubaa sa am mbégum sëñ Tuubaa la fa nga nekk nga làmb la ne sa pees sa pos sëñ daymaan jógal nga dugg ci soxna yi nga laaj ko ñu terale ko soxna Astu Mbàkke moomu teew ndax ab liggéeyam la di am mbégte bu baax a baax ginnaaw bi ñu sante soxna si ñu ngi nuyoo ko siyaar bu baax sunu mag bopp sëriñ Djili mi nga xam ne ñoo bokk ñaari waajur yëpp moom it mu jóge tuubaa ñëw mi ngi ci kaw ci ndigalul sëriñ Basirou moom sëñ Mamor ak sëñ Abdou Latif ak sëñ Moodu bu baax sama baayu bopp la xam ko ak man ma bëgg ñu santale ma ko Mbàkke Kamal di doomi Sëriñ Subayru moom borom Daaru Moxti kon nga xam ne sunu bàyyi la te fonk ko loolu ngir jikkoom ju rafet akuk tabam akuk mbaaxam ak mën a sonnam ci doomu aadama yi kon Sëriñ Moustapha Ga docteur maa ngi leen nuyu di la siyaar yaag ñi nga àndal ñëpp Sëriñ Codé Sey nit ku baax a baax te sell Sëriñ Saliou Bousso moom it sama wëllëre la di ku baax lool bàyyi Pape Ndiaye mi nga xam ne sama ginnaaw la nekk jaxasoo woon ak sama waajur daan sama waajur daan ñëw di ko dalal ci Dakar te loolu lépp mi ci ak mbaaxam la ak yaatalam loolu moom ak njabootam ñëpp samay wëllër la ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom defal leen tawféex. di sant bu baax a baax waa Lixlaasul Amal waa Lixlaasul Amal awma seen fay. ndax mooy boroom borom déguisement bleu nowaar yi ngeen di gis ak xale yi nga xam ne ñoo ko soloon aw maa ngi leen di béril ak sant bu baax di sant sama borom bu baax ci boole gi ma booleeg yéen ma ànd ak yéen liggéeyal Serigne Touba lixlaasul amal lañu wax muy jëf yu sel selal googu nag sunu boroom dogal ma woote ko ngeen ñëw laxasaayu ànd ak man lu jafe-jafe la ndax ak sel yombut kon maa ngi leen di sant di ci jiital jëwrin yi ku ci mel ne imaam Serigne Mbacke Bey mi nga xam ne daanaka moo yor sama kàddu sëñ Adama mi nga xam ne mooy jëwrin daayira di ak soxna Maguette Diop mi nga xam ne mooy jëwrin soxna yi soxna Adja Mbaw soxna Yombi Bey soxna Anta Ndiaye bu ñu limee dañuy juum eh, ay jàmbaar lañ yoo xam ne depuis ñu jàpp bis bi ba léegi yendalatuñ fanaanatuñ bàyyi seen yitte yëpp guddeeg bëccëg subaa ngoon di ñëw ci cant gi di bàyyi seen i seen i yitte sonn ci lool kon ñu ngi leen di beral ak sant bu baax a baax di sant bu baax sëñ musaa Dioum ci coono bi nga xam ne dañ na ko cant gi koo gis xam ne dañ na ko këram fan yi yëpp tëjuwut ni ñuy dugg ko génn loolu rek ab coono la kon ñu ngi koy sant bu baax a baax liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba rek moo waral mu nangu loolu kon am nañ mbégte bu baax a baax ci ànd gi ma ànd ak yéen liggéeyal Serigne Touba tey waxtu wu nekk ngeen may gunge te mosoo leen cee tayel mosoo leen cee sonn mosoo leen cee gëmmentu mosoo leen cee jàmbat dara ndax kenn ku nekk xam na ne ànd akub sëriñ de dafa jafe lool ndax ab sëriñ moom li mu bëgg rek la xam euh, looloo tax nag ku mën a ànd ak moom di sonn ci ay mbiram ah kooku jàmbaar ga te amuñu safay di sant bu baax nag samay xariti bopp sëñ Moustapha Guèye Guède sëñ Moustapha Mbacke Guède sëñ Abo ak sëñ Abdou Salaam ñoo nga xam ne samay wëllëree bopp lañ kon am na mbégte bu baax sëñ Modou mi nga xam ne mooy yor sama protocole sëñ Saliou Ndiaye mi nga xam ne mooy commission moo jiitu commission finance bi ci jëmmi lixlaas bi yëpp sëñ Assane Gueye mi nga xam ne mooy secrétaire général Diouf mi nga xam ne mooy jëwriñ génération lixlaas comme daal awma seen fay yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak ñun di ay xale di nuyu baax soxna bu sa bali samay mag ak soxna euh, moom i ñoom it fi lañ fanaan di wax rek message bu gàtt boo xam ne dama koy jëmee ci taalibe yi nga xam ne dañu maa topp day xale yu ndaw dama leen di ñeewante sax yàlla seere na ko ndax cofeel gi ñu am ci man léegi nii bi ñu jàngee ba pare rek fukki dërëm téeméer yi ñu leen doon sànni bi ñu jógee ñëw ñëpp kenn ku ne daa ñëw ba ràmb ak nu nuyoo ma ko ki am yéene jooju bu amoon alal ju mu jënde nag dana ko jënd def ko ci bis bi loolu moo tax ma leen di wax ni bu leen yàkkamti bu leen yàkkamti def leen ndànk rek ci kàttanu yàlla lépp lu nit di am di ngeen ko am lépp lu nit di am di ngeen ko am ànd ngeen nag ku ñeme responsabilité nag sama ànd ak yéen ak jàpp gi ma leen jàpp yàlla seere na ne amul lu ma ciy daw amul lu ma ciy dellu ginnaaw léegi la ko suñu xaadim Kamal di wax ci saal bi di leen wax ne cant gi anniversaire la nit ñi dañoo dajee rek di sant waaye daayira bi mooy dëgg-dëgg liggéey bi kon seen kem kattan na ngeen ko def ci daayira bi Sëñ Tuubaa bi mu jëm kaw ndax daayira bi moom li si mu Muntaxa waxoon rek ku jàpp dana dem ku jëpp dana dem ndax du laal suuf insha allahu wolof nag boo wootee dara da ciy ndànku ba xam dëgg nga ci li nga nekk wala dëgguwoo ci waaye li may mën a waat ci yàlla di ko jaayante ak Serigne Touba mooy ñaari nit bu ñu desoon ci lixlaasu amal bii ma ànd ñoom liggéey ba teg leen ci loxoy Serigne Touba li ma fas yéene te bëgg ko ci yéen it muy ngeen nekk ay nit ñu jariñu ba pare di jariñ seeni waajur man bugguma ànd ak ku jariñu bugguma ànd ak ku dul jariñ ay waajuram leneen li ci topp mooy rafetal leen seeni jikko yeen xale yi ngeen weg mag ñi mag ñi yërëm leen wajaal saqiir la naa yuwaaxirul kabiir wajaal kabir la naa yuxinu lil saqiir la ca topp yéen soxna yi fonk leen seeni borom kër tey diglu seeni ndigal di bàyyi seeni tare ndax munoo am àjjana mukk ci lu dul ne da topp sa ndigalul borom kër sëriñ bu la ko dig dalay nax Serigne Touba li mu digle te joxoon ci murit yi mooy ñi jaamu yàlla jaamu yàlla gu sax goo xam ne duñ ci boole ay rax duñ ci boole soxor duñ ci boole kiñaan waaye murid boo xam ne boo xaree xolam fekk ci mu tilim fekk ci ay noon fekk ci ñu mu bañ fekk ci mu noonoog nit ñi fekk ci muy xuloog nit ñi fekk ñu du tuddoog nit ñi kooku du murid xamaanakuñ naa muridun saadex te fekk boobu muy murid bu saadex di daanu ay jël ñu naan majji soob la te xam ne romb na bandi njublang la di bay di lekk te def daaya kookaay murit buy sàcc woor na gaaya suñ nee murit nga gaaw ne bàkke balla te xam ne koy du wuji woote bi yàlla loolu du ak murit bëri na murit yoo xam ne léegi bu ñu rombee kalpeb jàmbur këf dugal seen poste ne Sëñ Tuubaa moo ko xéwale Sëñ Tuubaa moo leen xéwale kalpeb jàmbur bari na murit yoo xam ne fu ñu yendu buñ fa jógee nit ña xuloo ndax dañ leen di jaxase dina rambaaji loolu mooy ak murit bari na murit yoo xam ne fu ñu yendu ñu xeeb Sëñ Tuubaa ndax ñoom foo yenn ñu xeeb sëñ tubaa ndax yow ndax sa melowu ñaaw wala sa sàggani diine wala sa jikko ji ñaaw loolu képp ku ko def di nga layoog sëñ tubaa yomal xiyaam bàyyi leen seen xel ci seen boroom ubbi leen seen xel ci seen borom xam leen ne yàlla rekk yàlla dara lu dul yàlla doo yàlla dara mënta mayee dara lu dul topp yàlla koo topp wala nga di ko jaamu ku dul yàlla perte nga te yaa ngi nax sa bopp sëñ tubaa lim nekkoon te digal ci murid yi moo ñu jaamu yàlla ñu bëri nag léegi jàdd nañ ci mboy gi bu yàgg la Sëñ Tuubaa digalee woon nekkatuñ ci lenn lu nekk lu leen neex la ñuy def nekku ci dee da ngay dem àjjana Sëñ Tuubaa li doxewul noonu ndax yàlla ci boppam lim doon maye mayu ko ko da ko koo jaay lenn lu nekk dañ na ko moom Sëñ Tuubaa ci ay coono lenn lu nekk teg nañ ko ko fanaa la nañ ko ci béréb bu ne xoolam euh, lambar ne atum lëmm moo xam ne ci taatu garab mango lay fanaan muy taw ci kawam benn bis mbaaram moom mas naa daanu benn tubaab ñëw di ko ko defarle tubaab boobu bañ ko jàppee tëj nañ ko douze mois ci defarle gi mu doon defarle suñ tubaab mbaar mi am na bis muy taw boo xam dafa gàddu ay téere moom suñ tubaab dem ba ci benn benn baraag boo xam ne moo fa ne woon bi mu ñëwee soxna si donc dana ko du la mën a fat du la mën a fat nga xam ne suñ tubaab daa taxaw ci biti dugal loxoom ci ci biir mbaraag bi ngir téere yi mu yor bañ a tooy moom jëmmam muy tawte ci kawam ba taw bi ngees am murit day way yéen waa Lixlaasu xamal am murit day way am murit da ngay am personalité di sol lu rafet parfum fu mu gën a neexee nga jënd ko di pompe ci xasida yi tey jàng xasida tey sant Sëñ Tuubaa waaye ku la gis yenn lépp sarax te nga ne sëb sëriñ ne malaka ni duniyaa waxuraa sama du dëgg am murit dafay silwise ba foo dem mën a jaxasoog nit ñi waaye bàyyi sa bopp mu ne cuq cuqaaral say yére kenn xamul lu mu nirool doo sol dàll yu baax ba pare fu nit ñi toog nga bëgg faa dugg buñ la génnee nga ne dañ maa xeeb ñooy xeeb la nit da ngay silvise te mën a jaxasoog nit ñi doomu aadama yàlla da ko fonk gis nga trang yii trang yii ci àdduna muy ay kat kat ak kër ak defuñ ko ngir jinne yi defuñ ko ngir mbaam yi defuñ ko ngir fas yi defuñ ko ngir muus yi nit ñi ñoo tax yàlla bind yooyu xéewal yooyu nag waaye léegi nit ñi ñàkk nañ fayda ba àgg ci dañuy tiitaroo sax loo xam ne yaa ko gën fi nga gis sëriñ bu toog ci télé bi mos Moustapha fi nga gis sëriñ bi toog ci télé bi naan sama jinne yi di tiitaroo ay jinne te yow yaa gën jinne yaa gën jinne yow boo góorgóorloo mën ngaa dem bay saafanteeg malaayka yi loolu tax mi dégg te am xam-xam nee na bu dëggal malaayka yi ñooy say nawle malaayka moo tax li nga am ngay xam yéen ndaw ñi laxasaayu leen takk seen ndigg ba mu dëgër jox seen bopp Sëñ Tuubaa te bàyyi mbiri àdduna yii caaxaan yii fu ñu wootee football nga fees fa dell stade ba nga fees fa dell bu ñu wootee daayira ñaari nit ñett lu mu murit du murit kët dafa am loo xam ne boo ko boo ci dee nekk yaa ngi nax sa bopp Sëñ Tuubaa naxu la de yow yaay nax sa bopp ndax dalaa xëttal ak mbooy nga jàdd mbooy nga jam jaar fu la neex loolu lu mat a maytu la kon na ngeen góorgóorlu ci ak njub te moytu cigarette moytu sàngara moytu loolu ñuy tere di ci jàppaate moytu leen yooyu dafay yàq seen adduna ba seeni mbokk duñ leen jariñoo yàq seen àllaaxira ba du ngeen jariñ seen bopp yomal xiyam woytu leen tux koo gis léegi mu ngi siggéem mégareetam bu ñu waxee ñu naan dañ koy royee ci diw bu ñu waxee ñu naan murid yi nangam ak nangam suñ bés xel koom damaa dégg mu nett loo xam ne barkeb seexul xaddim murid bu dëgg boo ko dégg sa yaram dina daw nee na daa nekk ci benn istoti ci ci ci Mauritanie ñu toog di waxtaan am am naar bu ne Sénégal moom daa bëri tarixa ay tarixa murit ak ay tijaan ak ay xaadir benn benn naar te ba fële ni murit moom baaxul. murit baaxul rek ñëpp artu ko ne ko yow xanaa dangaa def Basiir nga xam ne ni mu baaxee xanaa ne Basiir murit la waaye jaamu yàlla da koo jaaxal ba mu ñëw laaj ko ne ko yow murit nga mu ne kon murit laa suñ bas ko nee na ma laaj ko lu tax nga ne murit baaxul mu ne ah man kat damaa nekkoon ndar gis ñay këf fasati jigéen ñi di naan sangara di tux di taxawaalu ma laajtee ñeeñal la ñu ne ma ñeeñooy murid moo tax ma jàpp ne murid baaxul te effectivement bu dee loolu mooy murid murid baaxul loolu baaxul Baye Fall civilisation la gis nga Baye yi ñu roy boo xoolee maa Ibra Fall mii ak Baye Fall yi mu àndal di nga xam ne Baye Fall civilisation la koo gis ci àdduna mi ngi am na ko muy roy ba mu des Cheikh Ibra mm. koo gis ci àdduna rek am na ko muy roy ba mu des Cheikh Ibra Fall bàyyi leen xel li ma leen wax ku jànge ca tubaab yi boo ñëwee booy làkk français dangay ngay mel ne tubaab bu sotti ku jóge Murtani boo ñëwee da ngay mel ne naar waaye mas ngeen gis Baye faal buy nuru nuru lu dul Cheikh Ibra Fall te moo moom la ñëpp bëgg a nuru ndax léegi ku bëgg a góorgóorlu sax da ngay dégg ñu naan Baye Fallub diw Baye Fallu Macky Sall lu yaa ngi koy dégg kenn mu fi Baye Fall ku dul Sëñ Tuubaa man nga am jàmbaar sa kër nag waaye ab Baye Fall seex suñ Tuubaa ko am loolu nangeen ko xam la ca toppin mooy jamono jii ñu toll état bi na ngeen yërëm ñi ngeen jiite mbay mi doxut sàmm gi doxut nit ñi amuñu am xëy école bi doxut dara doxut ci réew mi foo lam mi ngi mel ne foo ram fépp a ngi mi ngi mel ne màggatu yaram fépp a ngi métti ji yërëm leen ñi ngeen jiite te yàlla tax pale yi ngeen tëdd climatiseur yi leen upp lii na ngeen ko jàllale pale yii ngeen tëdd kilimati yi di leen upp nit ñi ñoo leen fa fal seen wenn kart leen fa fal bàyyi leen bu ngeen wut kàddug nit ñi lu ne ngeen neexale leen ko bu ngeen jotee ci kàddug nit ñi ku leen woo téléphone du ngeen ko jël wala ngeen sensé numéro loolu ak war la te ab war kaddu dem àjjana bàyyi leen tubaab yi ngeen roy ay jullit ngeen te lii ngeen def sax tubaab vere yi duñ ko def tubaab yi yi duñ ko def kon la tàmbalee ci njiitu réew mi jëm suuf yërëm leen nit ñi te aar leen te sutural leen te seeni alal ngeen fexe mu ñoŋ bu kenn jël jëlati alal réew mi di ko jëfandikoo Omar ibnul Abdul Aziz bi mu nekkee amirul muminin aggoon na ci lépp loo xam ne daa jëm ci wàllu mairie beeg état bi bu koy jëfandikoo buy génn lamp boppam lay tàkk lay taal ngir bañ jëfandikoo lampi lampi mairie bi Omar ibnul bi mu nekkee amirul muminin àggoon na ci xiif ba amee biir buy metti ngir bañ a bañ a jël ci baytul léegi koo jiite mu jël la ko neex ci réew mi chaque jour nga dégg ay rapport yu dul jeex ci jël alal yi askan di ko jëfandikoo te njiit responsabilité la dagaanu baatu réew mi nga dagaan bañ jox la ko nanga xam ne responsabilité la ay yéen ñi ci kanam yërëm leen nit ñi yërëm leen nit ñi yërëm leen nit ñi Sénégal yi ñi ngi dee ñi ngi xiif ñi ngi mar am na dëkk yoo xam ne buñ añee ñu reer kon yow bul toog rek sab kilim di la upp nga jàpp ne lépp nii la mel lépp melut nii de am na ñoo xam ne bu ñu añee duñu reer bu ñu reeree du ñu ndékki rikk waay yërëm leen te milliards yi ngeen def seen compte yi ngeen génne ko def ko ci askan doom nit yàlla yi jëfandikoo ko. ba pare soble doo am foo ko jaayee bay gerte doo am foo ko jaayee bay sa loo bay boo doo foo ko jaayee ay tubaab jóge fa la ñëw jënd ko yow nga toog di xoole te yow ko bayoon loolu jaaduwut yéen ñi ci man dara def leen ci dara taxawu leen nit ñi yërëm leen te yàlla tax taxawu leen nit ñi yërëm leen te yàlla tax te yéen ngeen yërëm seen bopp gis nga nit ku xamul li lay jënde nga xam li ngay jar dangay dégg ñu naan nit ñi nañ bàyyee wax nit kenn mënu koo jënd léegi nit ñi ñu ngi leen di jënd de nit ñi léegi am nañ njëg de imam nit ñi léegi am nañ njëg fii la politicien di woote jox nit ñi ay tiset ak ay kaar ak ay 2000 ak i sandis nga sol mbubb bu leader ba génnee nga yuuxoo ko yëkkati ay pakaat te gëmoo ca dara jëw jënduñ la yow yaa gën a néew sax loo jël 2000 francs nit day ami valeur ay million ku ko bëgg a jël jox la ko millions yi askan wi nga bëgg koo lekk lankal yaa ko yomb lankal yaa yomb 2000 francs yow xamoo li la yàlla defal sax xamoo li la yàlla defal kon góorgóorlu leen te moytu ñi leen di nax te nekk ci suñ Tuubaa mii mii nga xam ne àdduna ak àllaaxira moo ci gën góor góor leen ci njub góor leen ci jaamu yàlla góor góor leen ci li ngeen war a nekk bu leen kenn nax bu leen kenn tëwëre bu leen kenn gondi bu leen kenn jay bu leen gis kenn mu yori 4-4 ba ngeen ñee ko bëri na ñoo xam lañ lañ daj ba am seen i 4 boo ko xamoon doo ko daj yow kon góorgóor leen ci njub wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi sant bu baax nag ñi nga xam ne tuddoon nañ leen ci bis bi yëpp ku mel ne Amadou kamara mi ngi nii di ma dégg ku jege Macky Sall la ku mel ne euh, Amadou Jibi Jaxate di ñuy wëlëree si Moussa Dioum mais ñu fexe bañ indi leen ci bis bi ñu jàpp ci bis bi ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di sant ñi fi teew ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal presque bi maa ngi leen di sant waa Lougaré TV ñu ngi doon def direct waa Tawfekh Production teew nañ fi waa Mouhalim Info ñu ngi fi suba ba léegi kon awma seen fay di sant sécurité bi sécrité bi nag seen chef commissaire central lay moom sama xarit la imam mi ànd nañ fa ba mu wax ak mu dana ko sëñ Saliou sama xarit la te loolu mooy dëgg moom sama xarit la am na lu ñu séq sama xarit la ku ko jàpp laa ku ko fonk laa ndax ku dëggu la te islam lay wane musta wane ay caaxaan kon moom maa ngi koy sant bu baax di sant commandant ak ñii nga xam ne yabal na leen fi ñu ñëw taxaw fi taxawu lépp kon awma seen fay njaga saw maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di jibi jaxate maa ngi koy sant bu baax ak ñi ci des ñëpp di leen gërëm